asalaamaaleykum mbokki Falokh euh, maa ngi am mbégte tey euh, tew fii lool may nuyu les deux chefs de village de Falokh bu baax a baax di nuyu les conseillers ñu mën ci lim Pape Diouf Moussa Touré Banel Cissé ak Soxna may Maymouna Diop ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di nuyu les coordonnateurs. ci coordination yi nga xam ne ñoo nekk au niveau de Falokh ñu mën ci lim Ibou Dia Pape Diouf lim naa ko sànq mais mën ci lim également Cheikh Oumar Dia les cordinateur yi nga xam ne ñoo nekk au niveau de Falokh yéen itam ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di rafetlu seen liggéey bu baax au niveau de Falokh du nuyul les cordinateur de la COJER de Falokh également moo ami et frère Bassirou seen maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu le coordonnateur Abdoul Aziz Faye de Fallo Wolof également bu ma leen nuyu rek nuyu naa bépp jeunesse bi nga xam ne nii mu ngi seen ginnaaw bu ma nuyoo les représentants de femmes muy Tata Banel Cissé ak Soxna a jot également nuyu naa bépp jigéen bi nga xam ne yaa ngi dëkk fii au niveau de Fallo di nuyu le président seenu gay bi nga xam ne icône la ci football. je pense que bu ma ko nuyoo rek en tant que président de zone nuyu naa bépp président ASC mais nuyu naa également képp nga xam ne sport de la ñor donc président Ousseynou maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la jaajëfal ci liggéey bi ngay def au niveau de la jeunesse de Malicounda. di nuyu le coordonnateur Cheikh Bamba Diop Cheikh Bamba Diop jiite bokk ci sama délégation mais dafa yor une muy le mouvement des élèves étudiants républicains de Mbour donc Cheikh Baba maa ngi lay nuyu. di nuyu bépp jeune bi nga xam ne nii étudiant nga nekk ci parti APR. di nuyu les responsables politiques au niveau de Falokh muy Falokh wolof comme muy Falokh séeréer damay bañ a lim moo tax damay bañ a juum moo tax duma lim mais bu ma leen nee les responsables de rek jàpp leen yéen ñëpp yéen a ngi ci biir. di beral nuyu nag xëy na dembatin dafa def acte boo xam ne si il faut ma nuyu ko mais remercier ko ci acte boobu ndax je pense que bu ñëwee tey. activité bu mel nii mu jël ay ballon jox jagleel ko ASC Falaax yi donc Demba ñoo ngi lay remercier dina la jaajëfal bu baax ci action bi nga xam ne def nga ko sànq. di nuyu la délégation bi ma àndal délégation bi je pense démb heure bi ñoo àndoon nekkoon Kër Cheikh ci benn tournoi boo xam ne dañ ma ko tuddee woon mais tey ñu sonn ñu tey ñu ñëw gungewaat ma donc véritablement la délégation qui est derrière moi je vous remercie et vous encourage maa ngi leen di exprimer ma reconnaissance également. parce que saa yu ma leen wooyee rek ngeen bàyyi seen soxla gunge ma ci lii donc cette délégation bi nga xam ne jóge na fépp muy les Omar Diop muy les Ousmane Diouf Ousmane Faye Paate Sène ñoom Demba Sène ñoom Lamine Ngom bu ma limee juum yéen ñëpp nuyu naa leen sant naa leen bu baax moo ami frère et mon collègue Moussa Ndiaye aussi gis naa la rafet naa bu baax sa teewaay ñoom Samba Dione yéen ñëpp ñi ma lim ak yëpp kontaan naa bu baax ci taxawaay bi kontaan naa ci gunge gi kontaan naa ci liggéey bi le coordonnateur John ci yow laay ñëw ndax dañuy naan euh, bés du tuuti borom lay tolloo bés bi maa moom mais yaa ko organisé je pense que comme tu l'as dit tout à l'heure Mamadou John mooy sama adjoint mooy l'adjoint de la coordination de la COJER communale de Malikounda depuis 2013 wala bien avant même ci la ñuy ànd di politique di liggéey ba egsi fu ñu egsi John nekk un homme très digne un homme très engagé mais un homme très je pense que tey bu ñu demee ba yegg si fii ci wàllum Cogère am na rôle bu important boo xam ne joué na ko ci ça je il faut ma wax ko ci kanamu mbokkam tey ci kanam géej Diouf la ñuy dëkk mais derrière Guèye Diouf y a des hommes très engagés y des hommes très braves yoo xam ne tey liggéey bu fi excès rek ñoom dañ ci joué un rôle fondamental te ci ñooñu Mamadou Dione mii da ci bokk je pense que taxawaayam au niveau de Falokh taxawaayam au niveau de la commune de Malicounda taxawaayam au niveau du département de Mbour kenn dootu ko naatable donc John maa ngi lay féliciter di la encourager bu baax a baax ci liggéey bi ngay def au niveau de Falon mais ci liggéey bi nga def aussi au niveau de la coordination de la COJER de commune de Malikounda je pense que les témoignages que vous avez dit Assane Ndiaye wax ci sànq loyauté bi engagement bu am au niveau de la COJER de Malikounda ñu koy rafetlu déggoo bu am au niveau de la COJER de Malikounda dañ koy rafetlu ëppaluma leen dara mais da ngeen ma jiital jàppale ma ci mission bi moo tax xëy na Cogère Malick ne ñu koy cité en référence un peu partout dans les départements de Mbour même national mais loolu yëpp yéen ñi nga xam ne nii ñeneen ak sama ginnaaw di ma gunge yéen a ko waral donc maa leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax ci taxawaay bi ci gunge bi quand même John kontaan naa rawatina bi nga jëlee bés bu toll nii nga ne dag ma ko tuddee loolu mbégte la ci man ndax xëy na bu la neexoon doo génn Falon bu la neexoon doo génn Mbour bu la neexoon nga dem feneen mais boo jëlee ma modeste personne ne ma da may tuddee tournoi bi nga xam ne day dajale mboolem jën bi nga xam ne dafa nekk au niveau de Fanon loolu dañ ciy kontaan te dañuy sawar teewee ko ndax lii kat dafa nekk luy boole ay jeunes lii dafa nekk loo xam ne day soxali gox donc lii nii foo leen ci woo rek ñun dañuy ñëw yuusi te bu ñu ñëwee tant mu monsieur le maire magasin la ñuy day aussi parce que coow li coow li moom la aussi bu ñu demee bu ñu tudd fépp bu ñu demee ba man lii yëpp c'est grâce à lui moom moo ñu wóolu moom moo ñu responsabilisé moom moo ñu dooleel lii bu ñu ko defee rek ci turam lañ koy def mais c'est grâce à lui ko def également. donc je pense que daal ñun ñu ngi gërëm bu baax a baax monsieur le maire Maguette Sène la jeunesse de Malicounda la jeunesse du département de Mbour am nañ contenté bu baax ci moom ndax yaakaar naa ni mu ngi leen di taxaw ci fépp mu ngi leen di jàppale bu baax a baax donc si on a maire boo xam ne nii tey ñëpp a ko bëggoon am donc dañuy gën a laxasaayu jàppale ko pour un deuxième mandat ak seen i coordonnateur des jeune ñu ànd jàppale monsieur le maire pour am un deuxième mandat ndax jàpp naa ne bu amee un deuxième mandat Malicounda émergente kenn dootu ko wax ndax lép li mu def gis nañ ko te je pense que bu amee deuxième mandat ça sera le mandat de grands projets ay mandat yoo xam ne lu bëree bëri li nga xam ne nii askan bi soxla na ko dinañ ko fi def donc loolu dañ leen ci woo yéen ñëpp ñu ànd doon benn jàppale monsieur le maire Maguette Sène le meilleur maire du Sénégal la référence de toute la pour tëj rek kontaan nañ di féliciter ASC bi nga xam ne moo jël ndam li mais di encourager également ASC bi nga xam ne nii moom moo perte football nii la li ci ëpp solo mooy ñu doon benn li ci ëpp solo mooy ñu doon ñu bokk ndey bokk bàyyi lu ci ëpp solo mooy ñu xool li suñu gox bëgg ñu nekk ci te ñii nekk sama ginnaaw ñii nga xam ne falox lañ dëkk ci lool la ñuy dox guddi ak bëccëg donc ànd leen seen ginnaaw ñu doon ñu liggéey Malicounda liggéey Falox donc la appel boobu la amoon pour lancer ko leen wax ne je suis très disponible je pense que John Bassirou Abdou Aziz faudra peut-être convoquer des réunions au niveau de Falox ñun ñu ñëw waxtaan ak jeunesse bi nga xam ne ñu ngi nii une jeunesse éveillée une jeunesse boo xam ne tey ñoom ñëpp ñoo ànd nekk ginnaaw monsieur le ñu gën a waxtaan ak ñoom pour les échanges à venir je pense qu'on sera très ravi de venir rapport à tout ça en dina la fëdilwaat sama colère di la fëdilwaat suñu sama amitié ak yow je pense que maak yow dañoo demoon dañoo bokkoon xam ak yow xam nga université euh, ni ma la xame pour te dire que man nit ni ma la xamee noonu laa lay jàppee man ni ma enregistré sa numéro sa téléphone bi ma ko changé yàggul moo jon pavillon H noonu laa enregistré sa numéro bi ma ko changé mu tudd sax un an pour vous dire que les liens j'aime les conserver le liens c'est important j'aime les conserver donc pour dire que vraiment on t'encourage gis nañ sa taxawaay au niveau de Ballon gis nañ sa liggéey di jaajëfal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah bu ma ñëw aussi indaale naa benn enveloppe 100 000 francs pour jàppale si na bés par rapport ak organisation bi merci beaucoup